Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White. Unifie et illumine votre peau. parfum de glace déclinaison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 yow booy seet see xarit doo tàggoo. ba mu jëm mu toll nii man su may génn kan laay tàggoo. su ma bëtër kan nga dul tàggu. nga tàggu moom mi di sa goro wala nga tàggu sa jëkkër sa jëkkër xamul fan nga dem nga génn kër gi suba ba ngoon sa téléphone am ci kër gi. yaay yow lan la mooy sa problème génn leen waxtaan ak samay xarit lan moo ci am. soxna ah, Bouta kon yow kër gi amoo fi waxtaanal. Mamadou. Ngoone ça va. nga def. ci lan la. sama jëkkër mooy woote. moo moo tax nga tëb di dal ni wuy ko. mënuma ko jël ma ko jël. wuy ko nga wax ko yaa ngi bi fu may dem te moom dafa nakari deret. wax waa bébé. Eh, foo nekkoon ba yéex maa décroché. nekk si kër gi maa ngi nii jàkkaarloog sama télé. Ah mooy yéen Lamine mi coupé na di. Eh, am sa halis. am nga maa bañ. yow sama yaay lan la lay bañee. dama ko romb léegi di ko nuyu fayu ma ma romb ko mu xëcc ma ba ndax maa daaneel ma wax saaga di ma sa yaay nee na man damaa ñibbe sëriñ ma wax na de mu naan ma jagalaa damay taxawaaru fu nekk laa su ma génn du ma tàggoo kilifa. léegi gaañ na ma saa yi mënatu sama yaay sama yaay wax nit caga genre kàddu yooyu de duma ko faral di dégg ci sama làmmiñu yaay. danga koy faral dangaa bëgg a weddi li ma la wax Marlo dangaa bëgg a wax ne man damay fen léegi waxal damay fen rek yow waxal nen man damay fen soxna Fatou waxuma ni dangay fen waaye bàyyi ma jóg dem laaj sama yaay eh loo koy laaje bàyyi ma jóg dem laaj ko laajal nga koy laaj yow chaque jour ma ne la sa waa kër yi dañ maa teg bët te xam naa lu ñu bëgg dañoo bëgg yàq sa alal pasar pasaree ko te man du ko nangu. du man maa leen di déranger man maa leen di déranger dinaa ko gérer bul wax sa yaay dara dara dara bàyyi ko lépp man dinaa ko gérer. yaay xanaa mënoo bàyyi soxna mi nga tongal. sank rek mang ngi dégg nga koy ciow soxna sa dom la soxna sama dom la mais soxna lu mu nekké du deug du yoon bu mu séysee ci keur gi ba léegi ëpp na un mois lu tax du togg bu xey so dalam rek di dox soxna jégg la dafa wara a togg dafa wara yak mais soxna fóotul toggul yàkkul bu xëyee sol ay dàllam rek du yendal du fanaanal loolu jeex na fi de il faut moo woote réunion de famille lijjanti lool ba mu leer yaay xawma loo nar a wax ak loo war a wax waaye sóoraaleel ni mareetu jeeg la soxna sa mbokk la rafetalal rek yaay saga jullit jullit rek mooy mbokkam waaye man mën naa la waatal ni maritu jullit dëgg la soxna minante ak Lamine man Lamine Lamine jëkkëru ngone hmm. Lamine da nga fatale sama cousin la man tamit c'est nous dans nous mais jël ko. après waa extérieur dañuy liggéey ba wàcc wéet bëgg ku leen wéetali te man instant bi moom mënuma wax téléphone une heure temps sama xol neexul sa yaay xas yi ma xas dafa maa jàpp ba léegi. Oh ma def leneen. gën ba ma def. papa la. waaw. jox ma sa caabi néeg yi ma defal la sa néeg. Hmm. bi mu ngi foofu ci bunt bi dama ko faa fàtte. Hmm. yow gën nañoo waxtaan de. pourtant maam woote na réunion de famille. Hmm. nee dafay waxtaan ci affaire ay bi. ah loolu yéex na ko def ndax soxna bi mu xëy sëy sëy si kër gi ba léegi lépp mu mat weer te jëlagul ayam ah dafa war a jël ayam nag ñu xam ne mu ne. bàyyi leen sama tata dafay wut liggéey xam nga moom femme africaine moderne la. baax dafay liggéey. mais yow ñaata soxna ñoo fi nekk di liggéey te teewul ñu yor seen kër yor seen jëkkër ah yow daal lu neex sa papa ak sa yaay rek neex na la xanaa gisoo sa yaay chaque jour di ba vendredi day day day togg ngoone jël samedi yow nga jël dimas ah waye sagar ak soxna ñom daal dañoo japp ne hôtel la ne ba ñoo def dara duñu foot duñu passé duñu raxas duñu def dara ah neeg bu mi fanane sax duko defar mais lool pour lan la bis bu yalla sax yow lay gis nga nga kay defar jigen buy de day day day respecter respecté foyer ah li da bëgguma ko ci jigen tonton hmm mu sedd rek daf ko tàmmagul rek bu ko tàmmee rek dina ko def. waaw ah, baax na li si kaaroon raawuli bët. kii ma gisee du sëykat kii ñu laa mu dër boobu. waaw. Serigne ça va. nga fi ñëw. yàgg naa fi maa ngi nii dama doon ñibbi sax. Lamine moo ma yónni ci yow. ah xuloon nañ sax man ak moom. naa ko danga dem marché mu ne yaa ci kër gi. nee ko moo la appel vidéo woo na la nee na jëlul wax nga dëgg de dama raté appelam hmm. mhm. sa yóbbante bi maa ngi ko doon fàtte sax pour yóbbaale ko maa ngi dem waa baax na soo yeggee nga nuyul ma mère ngoone waxal Lamine fi nga demoon moo gën ñu yàq xelam Ngoné yow laa doon xaar man ngay xaar si lan <laughs> Ah, Lamine moo ma doon woo ne daf laa woo ba sonn jotu la xaaral moo ko paas la ko xaaral ma ko whatsapp jaru ko am naa téléphone mën naa koo woo sama bopp. Hmm.

ngone yow ana lima yoni won jotuma ko jënd de lan motax xam nga bimay genn génn kër gi taguma lamin te xam nga rek mom, dafa ñeme kilifteef mu woma nak nag ma ngi si kër gi ne ko moment bobu sini mi ngi tok di ma xaar wa ah, loolu yow mënoon nga ko wax ni man la rek dara mënoon naa ko ko wax waaye xam nga rek dama bañoon mu mere ma. d'accord dinaa ko woo téléphone wax ak moom mën nga ma delal guddi. yaay dafa génn sànq. kër gu mag dañu koy organiser kër gi maa koy organiser fii ay jéeg ñàkkuñu fi yàlla def na maar am nga ñaari soxna àll mu ngi waaj a takk jabar seen ñaar ak yi ñu ngi ci kër gi. kon soxlawul ñu wut ay jànq liggéeyu kër gi dañu koy ay ayloo soxna togg ñaari fan ngooñe togg ñaari fan maretu togg ñaari fan chaque dimanche bii nga togg dimanche bii nag soxna dina jël njël su ko defee lépp mën a tàmbali ci am nak loy wax nang ko wax legui الله دفال نيان بسم الله كن مصري السيطان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 100% Caro White. Caro White, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Dream. Parfum de classe. Yik adoune am déclinaison ak Beyaz. Beyaz Blue Seduction. <laughs> Beyaz La vie est belle de Lancôme. Yes. <laughs> Beyaz Baccarat rouge unisex. <laughs> Béaz, Manifesto, Yves Saint Laurent. <laughs> Tainak, la petite robe noire de Gerlin ngay la petite robe noire de Gerlin Béaz. surprise yow Tay, Béaz 1 million ngay déclinaison des parfums de classe Béaz Amnefip, marche marché Bodem boutique Bodem Amnefip.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 non waxaguma ak moom nag. mais bii yéen yéen xanaa da ngeen ragal paa bi. ragal pourquoi ngay wax lool. mais si parce que yéen lan moo tax depuis boobu ba léegi waxoo leen ko dara. du ragal sax c'est juste que damay xaar moment bu opportun rek après ma wax ko ko. moment opportun yow kañ nga am moment opportun.

lan mo tax waxo lan lay waxe su ma mu sikkal ma ne man waruma wax tu moy sama mag ci keur gi ta waxul kon man duma wax yow yaa gëna a sa rak la do doon xaar man ma wax rek mu sal ci grain de salam su fekk ni ngóone moom sikki na trop quoi vraiment en tout cas dal warna dem kër am jëkkër ba pare nekk sa kër càmmañ la de ruube déet déet kër gii sama kër papa man ak ñoom ñoo fi bokk yam sa kër papa la de waaye yaa joxe dépense yaa leen yor lu ñu bëgg yaa ci c'est vrai que nii man maa leen yor man maay joxe dépense te aussi lu ñu bëgg maa ngi ci waaye vous pas, ni cër yàlla rek moo koy jox nit bul fàtte loolu <laughs> ñaar nga may may ci jël jël bi wa doom li lan la li de sama teranga la sama papa mo may xaliss mu jënd boisson yi pour sama tata xam nga jël jëlam bi mom fa ma def ci dara hmm, doom fay bax yo mëna torop li jafe moy nga dëkk ci doom yal na nga dëkk ci bax mama li nak yow la bëgg nga joxal mako sama tante te newal ma ko xeeb naa ko torop ci da nga bëggee lu yomb léegi mën nga def sa géwél non maman dafa ma la sama géwél sax man yaay sama maître ci yow laay roy damaa xam ne bu ma la ko joxee rek li ma ko defal ba mu baax moo dégg ko mu may baax am benn problème dinaa la doxal mission bi ah, anna ak mom nee ko man ma la yoni won léegi mom lan la wax. wàcc na mais nag Ngoné man dama lay jox ben conseil en tant que frère gis nga bo amee sa jëkkër mu nekk bitim rek da nga war di def lo xamanteni même buñ ko wowon téléphone di ko wax ni ki dafa def lu bon sax du gëm manam da nga wara dalal xelam ndax gis nga jamono ji ñu toll nii dafa yàqu te yàqkat yi dañoo bëri en tant que frère conseil bobu la lay jox ka bay ci xel. ah li nga wax moom deug la waye man dama jappone ne rek fen buy ak mo gën deug bu yaq hmm. Ngone fen lu mu defar tay bu suba mën na ko yàq te gis nga ku wet ku dee ak sa bàmmeel lu mu metti metti metti waxal dëgg ndax gis nga dëgg mooy njëkk te mooy mujj. waa d' accord mën naa ko woo. bien sûr que mën nga ko woo sama booy la et puis man maay man man la def référence. man ci ay sama la am woon nan laa def. lii hmm, nag rakk jàmbur lii de samay teranga la man ak sama doom ñoo ko jël jàppale la ko ci sa njël bi hmm. Marde jox na mo xaalis bu bare bari sax Marde xaalis bi mo jox bu ma ci nduggee sax dina des lu ma bëgg mën naa ko cee jënd ah, waaye nag teraanga dafa neex mm-hmm. merci beaucoup kontaan naa merci Mareetu nga invité say xarit su ko defee man ma invité samay xarit ñu concours sañse su boobaa yéen aawooy di ngeen xam ne ñaareel duñ seen moroom <laughs> loolu daal laa bëgg yii rakk jàmm man awma xarit dem ma dikku ma amoo xarit bu soo bëggee waxtaan koy waxtaane xanaa sama goro <laughs> sama xarit boobu jàmbur yow sa xarit bi mag na de yow kaa yu bees yi am munoo ko traité ak moom sa xarit bi màgget la de yow tamit <laughs> ah bii sama doom sama maam damay xaritam xanaa man maay waxtaan ak moom des fois loolu <laughs> lay bàyyi waaw baax alif masala sama yaay booy ma bismillah dëla ziar yaa ya. ci jàmm ñu sant yàlla alhamdulilah alhamdulilah yaa ngi ci kurus gi ñu ngi ci kurus gi maa ngi doog a wàcc nii yaa ngi doog a wàcc waaw maa ngi doog a wàcc yaa ngi ci jàmm ñu ngi si ñëw man ana soxna soxna xam naa mi ngi ci néegam waaw moom du dul génn ci ëtt bi dindi muy ñëw fii ci salle di santale ay nit bu ñu booloo pour dëkk dafa am nuñ ci jublu maanaam di waxtaan di tey xalaat di yokk xame di yokk mbokk di yokk cofet dëgg la yaay booy waaye gis nga yaay soxna li muy def nii lu mu tàmm la te gis nga nit ku nekk ak la mu tàmm te jamono ju ñu nekk nii nit ñi bu ñu toogee di waxtaan ku nekk sa téléphone lay nekk kenn du waxtaan ak kenn kenn du tal kenn xam naa nag waaw loolu la rek. faraluma kenn man daal ku daan rek yaa xam naa ni nga mel sa kii sama taw bu jigéen bi lii de. doo génn di lii da koy yeggali force. yow bàjjen ngi ci biir. doo ko woo mu ñëw toog waxtaan. waaye yow gis nga ko gis mais kii moom euh. ci loo nekk maa la raw maa la gën a namm <laughs> baax na ci moom nit ngi di sëy sëyu intérêt moom muy def ma génnu ay ndox jaay seytaane. lenn dinaa la ko wax je dem ak moi aussi solalul kenn bu buux te xoolal suurul kenn nag li laa la wax yaay mbëggeel indi noonu Val doo wàcc ñu waxtaan teg naa ataaya si suuf te sama bàjjen ni ñu ngi foofu di lido biige man duma teewee waxtaanu jigéen ndax dagi jigéen moom jiwaate rek te man moom du ma jëw tata pourtant jëwuñu de ci affaire yu la ñuy waxtaan ak sañse dama sama kaas fekk fii rek loolu daal ñu may tamit dégg xam naa suba moom sa jëndeel bi du yomb de ma ko taa ah, ah. <laughs> ci loo nekk def waaw ma yow looy xaar doo sol donc eh, rek ah yaa ngi bëgg a yéex yoo xam nga ne man damay def première part ba pare doogu ñëw ci deuxième sa yëf la kii nga ma doon wax waaw moom la xam nga yoo xam nga ma bu baax mm-hmm. man damaa kot si ba am diplôme boo ko ne jàpp xam nga lépp sotti na kii ay Fatmata Bangoura xeexaloog la daa xeex ba am di ko diplôme xeex rek lay def wane sa bopp na Fatmata Bangoura ngi nii cum man ngi xam ne dama daanee daanee daanee daanee ma ne jëli ma fi yóbbu ma yoof hmm. ah, ab daane rek laa maa dénka dootu laa ko defati. <laughs> noo maa ngi nii jàmba rek. lenn rek laa bëgg. dama bëgg nga dóoral ma sama wujj bi ba tas sërëm. laay laay ñun moom dinañ engagé wu. vidéo ko doo ko ci réseaux sociaux yi. loolu kese laa bëgg mën nga ma ko. oo naa nag naar nag si bu xam soow man mi xam ne dama duuraate ba di kay indi birig Coco Pulp, un rêve de crème. Pau Pau illumine chaque jour votre peau et vous aide à préserver un teint plus unifié. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Caro White.